Cheikh Ahmadou Ndiaye ñooy sunuy gan ñu fas yéene waxtaanee ak ñoom li ngeen ko xamee la démocratie au Sénégal la liberté d'expression piégée euh, comme Myriam nekk fi nag oh. maa fi ne euh, du ma du ma du ma du ma commencé damay def galanterie tuuti quoi acca <laughs> voilà euh, maître Ahmadou Ndiaye bañ la nuyoo ba paree rek euh, alors tey sa client fajar teel euh, lañu ko jëlee këram yóbbu ko mën nga ñu wax ci yan condition lañ ko fekk d'abord ak lañu lan lañ koy toppee voilà jërëjëf Ndeye Dime maa ngi lay sant ci laaj bi avant ma ciy tontu dama bëggoon a clarifier parce que xam ngeen ne man avocat la donc je suis un acteur de la justice bu assermenté alors te ñun dafa am lu ñu tënk lu bëri loo xam ne lii liñ ci njëkk a wax te xam naa xam ngeen ko mooy secret de l'enquête et de l'instruction donc euh, dinaa tontu ci sa question bi mais dama bëggoon a teg rek loolu nga xam ne lii mooy benn euh, obstacle boo xam ne bii foo ma teg ko aussi pour am benn réserve. Mhm. alors li ma ci li ma la ci mën a wax mooy Adama Gaye ñëpp xam nañ ko Sénégal euh, nekk na d'abord un sénégalais boo xam ne bii ku xarañ la ci li muy def c'est parce que seen naatangoo journaliste la waaw jaar na fu bëri am na jaar-jaar mais aussi nekk na d'autre part un acteur de la société civile parce que c'est un activiste et il écrit beaucoup sur des question d'intérêt national. Mmh. donc ci la ko ñëpp xamee. d'ailleurs de, depuis quelques années autant avant régime bi di ñëw que bi régime bi di ñëw ba régime bi egg il s'est toujours prononcé avec engagement sur yenn question d'intérêt national donc wax na ci pétrole wax na ci démocratie wax na ci leneen ak leneen loo xam ne lii ñëpp ràññee nañ ko donc tey conditions yi ñu ko interpellé mooy toujours vous savez dans un état de droit il y ce qu'on appelle la force publique force publique boobu nag état rek moo am sañ-sañu fekk nit sa kër fajar nga yee ko dagg ay nelawam jël ko ne ko kaay wuyu parce que nangam ak nangam ak nangam donc état boobu état rek moo ko sañ parce que keneen ku dul état sañu ko su la ko defee nga diggaale ko moom dégg nga wala nga yóbbu ko ci yoon alors tey euh, ci fajar la ko police ñëw jël si këram ne ko daal euh, waa si daal procureur ma wax ñu entar la ci condition ko jël jël si nag il faut ma leeral ko violence

ragal moom boo ko xoolee li mu mës bind yëpp ak ni mu engagement am euh, ci yenn euh, question d'intérêt national yi nga xam ne moom du ragal. parce que toppee tey lan lañ koy toppee. non en fait ci li ma ci mënti wax ci li ma ci mën a wax liñ koy toppee daal mooy y a deux articles du code pénal yoo xam ne nee nañ mooy base poursuite yi mais nag damay fàttali toujours. ne ku ñu interpellé rek tu bë tu as tu tu es présumé innocent maanaam mm. du ku ñu yóbbu police rek dañ lay dañ lay tuumaal yaa ko teg yaa ko def mais y a deux articles y a deux l'article deux cent cinquante six du code pénal li ñuy wax division d'écrit contraire aux bonnes mœurs benn yoon ensuite deuxièmement mooy beneen bi bi ko mujj a mooy offense au chef de l' état. kon loolu article quatre vingt la. article quatre vingt waaw. ok yow dafa mel yaa ma gën a xam article yi ah. <laughs> maître ndax moom fi mu toll nii lan lañ la wax euh, ci ginnaaw bi nga xam ne division des investigations criminelles déglu na ko ba pare. Hmm. garde à vue prolongée lay am wala retour de parquet demain. non en fait tey dañ ko notifié garde à vue bi ñu ko entendre ba pare dañ ko notifié garde à vue à partir d' aujourd'hui waaw donc nekkagul ci kaw retour de parquet parce que retour de hmm. parquet ci tribunal nga koy amee ba ñëwee ba ci procureur procureur bu fekkee ne dégloogu la dafa la war a jox juge d'instruction ci lañ lay def retour de parquet. mooy hmm. bi di la déglu. ñi ñuy fii ci Sénégal 48 heures. 48 heures hmm. bu fekkee ñu prolongé ko. moytuwul mën na dem. Euh, waaw parce que délai de garde à vue. comme ni ñu ko waxee 48 heures la. ok bu 48 heures yi passé. enquêteurs yi bu fekkee ne seen liggéey jeexul wala am na leen lu ñuy gëstu mën nañ ñaan procureur mu autoriser leen ñu prolonger ko. Mhm. Euh, encore ñu gis ne moom mi nga xam ne mooy Adama gay ay postam sur Facebook parfois dafay excessif yow nga nekk avocat am di ko layool tey ndax dina yomb ndax li ñu koy payé ci 80 également nga xam ne mooy tey ko ak mu ci ne mooy président Macky Sall. non xam sax ci post ci wax ak parce ni ma leen ko waxee rek waruma ko rek d'accord ndax su parce que ni ngeen koy mm-hmm. man mën a daal mm-hmm. bu ma liggéey benn article li ma ci intéresse mooy la substance avoir maintenant des mots qui débordent ou des mots qui sont assez virulents mais comme ni ñu ko waxee rek man li ma ciy jàpp mooy lessance maanaam li nga bind nii lan mooy essentiel bi quelle est général générale et quel est le fil conducteur loolu laa si jàpp. léegi léegi léegi Thiat. Euh, c'est vrai que ni Adama euh, mi ngi nekk euh, garde à vue euh, Guy Marius Sagna gis nañu ni mi ngi ci kaso bi war na toll ci ay ci ay fukki fan mu nekk ay série d'arrestation yoo nga xamante ni dafay dafay dafay am en dehors de ñaar ñi am na ci lu bari loo nga xamante ni dañu jàpp ne bokk na ci li mën a gàllankoor liberté d'expression au Sénégal yow ban appréciation ngay def ci xewit bi nga xamante ni am na ku mel ni Guy Marius Sagna ak nekk activiste comme comme yéen ak ku mel ki nga xamante ni mën nañ ko jàppee d'alerte et de bon déjà pour jël ko cas par cas euh, parle je dirais que d'abord bu ñu fàttalikoo Ndiogou Wack Seck li mi nekkul nguur Wade ak Idrissa Seck ak ñoom Ousmane amul Abdoulaye ak waa Sénégal seen bopp ak ñëpp tey moom mu ko jël toftal ko ci benn ni ñu soit sur terre le Sénégal amatul démocratie pour wax ji démocratie quand tu empêches à de se droit de marche Macky Sall dafa bokk ay promesse mu ñëwee dinaa ko renforcer xoolee ci biir bi Macky Sall nekk yëpp ñi fi ñu rassemblement ñu nangul leen ko motul juróom donc dafa ñëw pratique yi fi nekkoon yu bon yi nga xam ne te ni moo taxoon peuple sénégalais bi xeex ñu ñàkk ci douze bakkan fii à Dakar ñàkk ci trois au Fouta am ñeneen ñu ci blessé les sénégalais porte ko au pouvoir par la rue mu ñëw bafouewaat lépp luy loi bafouewaat lépp luy acquis démocratique le Sénégal a regretté aujourd'hui le Sénégal ne même plus cinquante quatrième ci démocratie africaine bu ñuy citer ay démocratie aujourd'hui on parlera de du Cap-Vert on parlera du Ghana on parlera d'autres pays mais plus du Sénégal on a une pseudo dictature au Sénégal kenn du wax kenn du nooy pour la première fois dans un pays le Sénégal sooy wax président ñu mais on est où là on est mën ci kaw Adama pour wax ni Sénégal amul liberté mais si ka non wane na amul liberté mais journaliste nguur Macky Sall te moom ci ci premier bi muy recevoir cahier de doléance wax na ko Olympique ni liberté d'expression am na parce que mosul leen dégg benn journaliste tëj moom la président la wax waxee li muy wax lu mu wax waxee la loolu du lu ñuy jël waxam du ko jël comme argent muy benn deuxièmement waxala euh, confrère journaliste bi ñuy jàpp naa la yeneen journaliste yoo xam ne wax nañ fi lu gën a graaw te ñu ngi yaataa yumbe ci booru palais bi justice bi c'est justice à deux vitesses ku am ndey la ak amul ndey mais pour venir ci kaaw Guy Marius Sagna xam nga ñun waxuma la waxuma la waxuma la naqar bi ñu ci am mais métit bi ñu ci am ci ci ci niñ ko defee ci nit ki jàpp ko te tegoo ko ci dara téye la pour seet lañ lañ la war a mën a inculper mais de des ministres français ont pris leur responsabilité ci kaw Guy Marius Sagna tamit damay fàttali rek ni li ñu koy toppee mooy fausse alerte au terrorisme la ñu wax. mais xam nga loolu waxu naxa saxandang la Guy Marius Sagna premièrement nekkul woon ci conférence de presse bi loolu doon amee toogul woon ci présidium bi il était là-bas parce que c'est son mouvement moo ko doon def mais toogul ci présidium bi jëlul poste bi mu def ko ci biir compte Facebook am mi ngi woon ci compte Facebook mouvement muy frappe France dégage. donc ce qui veut dire que li ñu koy accuser du dara lu parce que yow yaay Guy Marius Sagna aujourd'hui da nga bokk aar lu ñu bokk aujourd'hui yaa ngi réclamer xeexu askan bi muy mbirum pétrole ak gaz parce que Guy Marius ku ko xam xam ne que c'est l'un des Sénégalais les plus engagés loolu amatul laam-laam mi ngi ci xeex bu ne case des tout petits ba ci lu gën a mag mi ngi ci nekk suba ngoon gi di ci xeex dañ ko jàpp jaay ko doole pour démoraliser pour xoqatal pour aussi lancer un signe pour ñun ñii fi nekk nañu ay jàpp nañu gii tey <laughs> mais suba yéen na ci topp. Mhm. c'est te loolu duñ ko bàyyi mu jàll. jàppam bi teguñ ko ci dara. c'est les ministres français ñoo menacé le Sénégal parce que gis nañ ko Sapin li mu waxoon gis nañ ko Sapin def ne Philippe Castaner aussi avant Castaner Sapin moo njëkk a wax si vous touchez au franc CFA vous risquez le terrorisme mhm. loolu lu ko gën a leer kii ñëwati waxati ne bu fekkente ne euh, Sénégal bu bu mu nelaw dans sur ses lauriers parce que le terrorisme est mais la le Sénégal devrait demander à la France des explications mais pas à un citoyen sénégalais bu offusqué sur cette question su fekkente ne le Sénégal c'est une sous de la France qu'on nous le dise parce que on défend les intérêts de qui là Guy Marie s'est porté volontaire pour défendre les intérêts du Sénégal face à une métropole parce que dañu am gaz pétrole comme un citoyen modèle mhm. mais ko gas pour wax ko alors est-ce que aussi di wax naan la commencer des autres ki nga xam ne mooy Adama Gaye ñëwaat ci moom bi muy wax wax donc journaliste en tant que ami de la woon am na fu ñu jotee loo xam ne xam na ko ci moom fas ko bi est que loolu aussi liberté de parler de parler de parler war tax n'importe où n'importe quoi xam nga man je ne partage pas votre avis. pas que loolu une question man l'avis de ces gens yi wax comme yow lii comme li nga question bi ñi ko xalaat. Mhm. partagé wu ma seen avis man c'est un journaliste qui est indépendant qui a le devoir de dire dans un pays où aujourd'hui il se fait de plus en plus rare des journalistes d'investigation et qui prennent leurs responsabilités et leur position pour man c'est un courage. c'est une ah, vraiment un dévouement pour son pays maintenant li Macky Sall def c'est pour le décourager pour que ñeneen. des positions allant jusqu'à même parfois insulter. entre guillemets honnêtement gisuma loolu gisuma loolu j'ai pas vu gisuma poste bi ngay wax gisuma ko man li ma gis mooy un sénégalais journaliste qui traite ay information yu mu am. joxe ci avem ci réew mi parce que ci Sénégal la bokk son métier de journaliste permettre na ko mu teg édifier les Sénégalais sur des questions mm-hmm. dañ ko jaay doole loolu mooy la vérité dañ ko jaay doole est-ce que loolu du du en arrière douze ans ou dix ans en arrière euh, par rapport ak euh, la fameuse question euh, nañu dissocier euh, président de la République ak chef de chef chef de parti est-ce que coow li am yëpp ay article quatre-vingt bi ñuy toppee ay nit bu fekkonte ni fexe nañu comme ni ko Abdou Diouf defee woon en 1996 wax ni Ousmane Tanor Dieng parti baa ngi noonu man damay consacré wu carrément ci ci état bi ñu jéemoon ak Abdoulaye Wade ça a pas marché est-ce que jotul. Euh, euh, promesse yi nga xamante ni président Macky Sall def na ko mu mu mu fexe ko euh, tenir. Hmm. moo di ni bàyyi parti bi dem gérer réew mi su ko defee li daal Adama gay ba jaxasoo am mën na mën na bañ am est-ce que jotul. Hmm. ñu dindi ku nekk président de la république dootoo jiiteeti parti est-ce que loolu bu dañoon coow yi du am fu muy féete. merci Mamadou. Euh, je pense que da ngay génne un boo xam ne bii c'est un débat débat récurrent mooy loo xam ne lii ñu ngi koy wax depuis presque euh, avant 2000 ba 2000 ça fait plus de 19 ans xam nga Abdou Diouf ñëw na bi mu ñëwee il a mis Ousmane Tanor Dieng premier secrétaire du parti et s'est mis en retrait alors après l'alternance c'était quelque chose dont tous les démocrates s'attendaient Mais ça n'a jamais eu lieu pendant les 12 ans que le président Ablaye Wade a fait ici. Depuis 2012 aussi également, c'est un débat boo xam ne bii ñëpp ñu ngi ciy waxati mais aujourd'hui je pense que euh, pour une démocratie apaisée et pour renforcer les institutions parce que président de la République c'est la c'est c'est la clé de voûte des institutions comme ni ñu koy waxee mm-hmm. alors boo bëggee nekk président de la République bëgg a nekk chef de parti jël ñaari mbubb nga tegale ko mais nit kiy wax ak yow mais écoute bu lay critiquer du mën a dindi sumi barax du xam ban mbubb lay simis solo la bële donc loolu mooy indi souvent ay confusion aujourd'hui tey jii le Sénégal comme le sujet c'est la démocratie Sénégal c'est un laboratoire de la démocratie en Afrique c'est un des premiers laboratoires nous ne sommes pas la plus grande démocratie contrairement à ce que tout, tout, tout, tout le monde pense. On a des pays africains qui ont une démocratie majeure. Je veux parler tout à le Cap-Vert, par mhm. exemple. Je peux lui donner un exemple. La Guinée-Ndek. C'est des, des vitrines. dañoo dañoo mës a avancer sur le plan démocratique ñun nag Sénégal li ñu tàmm def mooy bu ñu avancer de dix pas après on recule encore de dix pas donc qui n'avance pas recule d'accord maître est-ce que gis ngeen euh, publication yi nga xamante ne nii yëpp Adama Gaye def na ko ci Facebook bi parce que am na yoo xamante ni tey su suwaag léegi am na ñu koy partagé waaw yoo xamante ne nii dafay chargé non seulement le président de la République mais sax dafa dugg sax ci vie euh, vie privée waaw mais xam nga ndey li ma la wax sànq xam nga moo tax toujours il faut pas qu'on aille vite en besogne xam nga une enquête bu ñu ko tijjee damay gis tout le temps nit ñi bind à gauche wax na lii wax na lële mais c'est des informations qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve parce que nit ki mën nañ ko tuumal li xamoo lan la tontu xamoo ndax nee na moo ko def wala defu ko xamoo ndax li ñu wone ci presse bi mooy li nga xam ne ni loolu lañ ko notifié ou pas de sorte que j'appelle tout le monde à la prudence et à la réserve lan laa lan lan laa mën a comprendre loolu kon euh, li ñuy publier ni ay comptam la du comptam non mënu tontu ci loolu wax dëgg yàlla je vous connais. assez non mën man a compte yi ah mën nañ pirater non a ce que je voulais dire. oui mooy que comme je vous ai dit. oui je ne veux pas me prendre en défaut. c'est pas parce que dama leen ko bañ wax mais c'est parce que tout simplement je suis tenu par la loi. je suis de loi et je tenu par la loi am na lu bëri mënuma leen ko wax au risque moi-même de de de de me faire l'objet de poursuites disciplinaires effectivement que j'appartiens à un ordre je ne suis pas au-dessus de la loi Maître. de sorte que de sorte que tey jii di ma leen mën a wax rek mooy ñi nga xam ne ñi nekkuñu ci biir je les appelle à la prudence parce que du li ñu wax yëpp ci réseaux sociaux yi loolu moo am mais maître euh, euh, Adama Gaye li nga xamante ne gis nañu ko sur sa page Facebook mhm. nekkul ci premier coup d'essai wam euh, ni nga ko waxee sànq journalistes yi dinañu gëstu quand même am ci yenn information yi mhm. yow mi nga xam ne yaa koy layool li nga fi wax léegi ci démocratie est-ce que démocratie tamit yegg mhm. na ba ci nit ki di wax lu ko neex jël prétexte démocratie rek wax loo xamante ne ni ko di Dimet waxee sànq dugg ci vie privée ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ndax day xam nga man li ma bu ma lay wax dama lay wax par par rapport ak li fi xew tey dégg nga leneen li am derrière liiruma ko gisuma ko. am na ay publication yoo xamante ne ça date de 2016. loolu ci ci Facebook bi. loolu liiruma ko man la page de Adama Gaye liiruma ko xëy na yéen journaliste yi leen mais li ma leen mën a wax mooy li xew tey li tax tey jii mu nekk fa mu nekk ñu téye ko fa ñu ko téye. léegi loi bi lan la wax ci li nga xamante ne moom la ñu ko toppee maanaam loi bi lan lañ ci mën a teg euh, euh, daan bi tey bu fekkee ne duñ koy toppee c'est avéré mën nañu xaar lu tëj ko ñaata ati kaso lan moo ko ci mën a fekk voilà loolu mun naa leen ko wax parce que benn texte de loi la mun naa ko lire mm-hmm. <laughs> dégg donc euh, du wax damay wax ne diffusion de décrets contraires aux bonnes mœurs loolu article deux cent cinquante six du code pénal moo koy wax. li mhm. mu koy waxee mooy am nga un mois à deux ans. Mhm. loolu loolu c'est la loi tout le monde doit le savoir. article quatre-vingt aussi def naa sama <laughs> sama. Mhm. ndey dime yéen journalistes yi moo ko gën a xam. article quatre moom cosaan la fi. dafa siiw dafa siiw waaw dafa siiw voilà dafa bëgg siiw. dafa siiw peine yi mu prévoir aussi xam ngeen ko Euh, tey tey jii yooyu mooy articles yi nga xam ne sur la base desquels on lui a on lui a imputé des faits xam nga kii accusé bu ñu tënkoo bu ñu tënkoo ci article quatre-vingt bi joxe goo diir bi ñaata la man na non non non je n'ai pas je je, le l'incrimination. loolu tam six mois ba na ñoo xam ne deux ans la en principe. bi un mois la ba deux ans. oui avec maintenant li ci topp yëpp bu fekkee ne ñëw nga au niveau de du juge d'instruction procureur bi bu bindee réquisitoire am mandat de dépôt c'est obligatoire ak yeneen yeneen. ci mais mais mais maître li ma jaaxal. Hmm. Euh, xam naa ñii dinañ ñi ma dinañ ñi li doos wax dëgg la. Hmm. dañu gis ni avocat bu toogal fii nguur gi. Hmm. li ngay bañ a wax daf koy wax dafay dafay chargé mais mais boo toogee fii. sa client ñu tuumal ko loo xamante ni yow da nga jàpp ni dafa woyof. Mm-hmm. ba pare nga toog naan non je suis tenu par la loi du ma wax nangam du ma wax nangam est-ce que dina leer ci bopp askan wi parce que vous a mm-hmm. Mm-hmm. pour nga éclairer la lanterne de l'opinion par rapport ak li ñu tuumaal sa client Fatou Abdou wax na ko Ndeye Dime wax na ko li ñuy tuumaal sa client mooy ñàkkee war ma président de la République waaw waaw ñàkkee war ma président de la République ya yàgg na ko def peut-être bi ci mujj. Mhm. moom la ñu moom la ñu jàpp. Mhm. mais nag yaa xayti ñoom mhm. dañu lay laaj pour nga leeral. mais nga leeral leen te bàyyi loi bi parce que ñeneen ñi bokk ci nguur gi bu ñu fi toogee itam li ngay bañ ñoom dañu koy def mu leer. kon def ko sénégale yi xam. dos sa client la nañ koy toppee au moins bu dee dañ lay jàppale sax ñu mën laa jàppale. dos dos attends man da ngeen ma invité. waaw. comme euh, avocat d'Adama mais sur un thème qui est général waaw waaw alors man euh, beneen avocat bu toogee fii que mu nekk ci nguur gi wala mu bañ a nekk ci nguur gi kooku peu importe man pour man. Mhm. je suis tenu par les dispositions de la loi le secret d'une enquête qui est en cours man duma ma ko divulguer est-ce que dégg nga. du ma ko mais mais pas secret de l'enquête. parce que am na leen loo xamante ni euh, secret de poli bon secret de polichinelle la ñëpp xam nañ ko. Eh? waaw d' accord. waaw loolu loolu ko jàppee secret de polichinelle. waaw mais man j'ai une déontologie attends dama am benn déontologie boo xam ne mënu ma ko jàdde. dégg nga wax ji waaw donc tey jii man mën naa leen wax li nga xam ne lii je considère que man à mon niveau du nekk une euh, une une une une une violation du secret de l' enquête. parce que man j'ai toujours été contre un phénomène qui est très récurrent au Sénégal. Mm-hmm. mooy Sénégal bu ñu fi jàppee nit yóbbu la police enquête la le lendemain mais y a même des PV qui sont diffusés. mais ça c'est inacceptable mais mi ngi noonu. ma ça c'est inacceptable. allez mm-hmm. nous sommes dans un pays un de droit la la dignité des personnes qui sont interpellées doit être préservée. man c'est ça mon opinion. mais est-ce que loolu combat boo xamante ni ordre des avocats ñoom ñu ngi ciy liggéey euh, kii union des magistrats euh, ñu ngi ñu ngi ciy liggéey ñu bari jàpp ne loole bokk na ci li tax ñu bari amatuñu kóolute gi ñu waroon am ci la justice sénégalaise. mais mais mais mais mais mais yaa ngi soog a laal yaa ngi soog laal yax bi. parce que man pour man pourquoi la justice doit être euh, dañ dañ ko war a wóolu mooy que la justice d'abord c'est une justice boo xam ne bii. dafa am ay règles yoo xam ne yi ñoo ko tënk te képp kuy liggéey ci justice muy magistrat bi muy avocat bi muy greffier bi loolu daf la tënk d'accord donc bu la tënkee da nga waroo wàcc am ay wàccuwaay ak moom maanaam nga respecté ko dégg nga de sorte que tey jii un procès verbal d'une gendarmerie une police ou même d'un juge d'instruction mais tey warul génn dans la presse c'est pas parce que les journalistes dañu waruñu def seen liggéey. Mhm. man je mhm. loue travail des journalistes. parce que vous êtes le quatrième pouvoir vous êtes un pilier de la mais démocratie. Fatou Abdou yow ngay dimbali mhm. ngeen may ma 30 secondes rek. ma ñëw ci bi. mais mais Thiat li mu wax. boobu léegi yaa ngi yëngal sa bopp. on a comme l'impression que ni yow da nga. vous êtes d'accord moom parce que. pour man euh, Adama Gaye n'est pas Modou Ndiaye bi nekk ci benn koñ ñii kenn xamu ko. c'est différent tur tur Moundou Ndiaye baaxul. non je veux beneen tur. non mais Modou Ndiaye wala wala wala Boola wala Samba wala Mademba. waaw jëlal jëlal Masamba jëlal Masamba. Masamba wala Mademba bi nekk si koñ bi kenn xamu ko mu nekk mu am affaire privée bu muy régler ji. kii c'est une affaire qui est dans l'espace public. Mhm. su fekkee ne da nga accordé wu selon moom son poste il je demande au secours mais il il fait savoir aux Sénégalais que yéen ñi may xeexal j'ai besoin de votre soutien alors pour ñun ñu mun ko soutenir en retour on doit savoir les tenants et les aboutissants du dossier ah et je pense que ça fait aussi partie de la liberté de la presse que de savoir lan moo nekk ci fond yenn dossiers yi nga xam ne c'est des dossiers publics publics jàpp ñu n'importe qui dañu jàpp koo xamante ne ci exercice su liggéeyam la muy informer les sénégalais ñun les sénégalais yi muy informer bëgg nañu xam sur la base de quoi lañ ko téye sur l' affaire Guy Marie dañ ci teel a jël suñu ay disposition bi ñu demee délit d' opinion lañ jëkk wax avocat yi balayé ko d'un revers ñu indi affaire euh, euh, xaw ma fausse alerte terroriste. fausse alerte. Mhm. mais avocat yi wane nañ ne loolu amul fenn tegul ci leen et ñu ngi koy wax di ko wax parce que dañ bëgg sénégalais yi comprendre que ne dañ ko bëgg a jaay doole. et ñun suñu intime conviction Adama Gaye dañ ko bëgg a jaay doole parce que jàpp nañ ne liggéeyam en tant que individu di mooy mooy mooy journaliste mu wax na touché na ay dossiers yu sensibles yoo xamante ne nii xëy na am na nu muy déranger nguur gi. Mhm. bëgg nañ vraiment comprendre les fonds de ces dossiers là pour que askan bi mun a xam naka la ci amee sens du discernement. Mhm. et que surtout bu fekkee da nga indi benn déontologie ci réew moo xamante ni nii ña ngi ko seqal toppatoo wuñ déontologie toppatoo ñu règlement chaque jour ñu bafoué ko chaque jour ñu bafoué ay loi ak ay règlement ci réew mi te ñu koy def mooy ñi nga xamante ñoom ñoo ko war a assurer garantie mais mais Thiat est-ce que la situation est si euh, ñi ngi gis ni Sénégal ñi ngi demande ay autorisation de manifestation des fois ñu bañ ko des fois tamit ñu nangu ko sans raison amuñu droit bañ ko parce que constitution bi li mu wax lu leer la dangay ngay notifier l'autorité publique pour mu sécuriser hmm. tàggoowuñu xam nga demande autorisation déjà foofu la ñëpp faussé demande d'autorisation aviser informer, informer l'autorité publique noonu la tudd du demande de mmh. je pense que aujourd'hui préfet yi nekk yi fi jaar depuis ces douze dernières années wala depuis mmh. même depuis que le Sénégal est Sénégal ils se trompent de travail xamuñu seen liggéey man maa ko wax mmh. li ñuy liggéey waxuñu leen ñu aaye ñu leen ko kon keneen moo leen sant pour ñoom ñu aaye li ñu leen wax mooy lii dafa xew ñëw leen ngeen ko et képp ku la prétention de dire au Sénégal aujourd'hui que yaa ngi magnifier notre semblant de démocratie jum nga dafa régresser sur tous les plans et puis je ne suis pas d'accord ñuy wax ay dañu war a une démocratie apaisante non soit on est dans une démocratie soit on nekkuñ ci démocratie apaisante pourquoi masla pourquoi munoo nekk président d'un réew bu ñu ne Sénégal nit ñi xeex am ay liberté hmm. nga xëy dem bëgg leen ko pire mais démocratie aussi tamit ne veut pas dire je m'en je on ne on hmm. hmm. noonu la woon da ngeen jógoon 23 juin Sénégal amoon foo xam ne démocratie am fa la yeggoon ñu ñu bari naw ko yéen par la li ngeen def lépp par la force ngeen ko defee moom mën nañ mën nañ ko waxee noonu coow amoon na ci muy muy 23 juin muy 27 euh, juin. muy muy 29 juin. yéen ici quelque part est-ce que amu leen part de responsabilité ci li ñuy dund ni parce que ñi doon xeex ba président Macky Sall nekk yéen ci ngeen bokk ah. dos mënuma d'accord ak yow pourquoi parce que le peuple sénégalais musul wàcc yoon. li ko yoon may li ko constitution may la musa a jël. mooy le droit de se manifester et de manifester son ras-le-bol. c'est ce que le peuple sénégalais a toujours fait. au contraire on a opposé à ce peuple la violence. Wade dafa violent woon contre le peuple sénégalais yi weesu na violent le dispositif que yi met en place pour interdire le car mënoon na ko def pour encadrer c'est ça la vérité bu ñu interdire ngeen gis ay chars de combat lu nekk ngay gis man ay xeetu fetal yi ma musul gis sama àdduna alors que bu ko autorisé woon encadré ko avec le car de ce dispositif là nos frères policiers yendu suba ba guddi jot lekkuñu naanuñu mm-hmm. ñu mun def li ñuy def. Mhm. il faut que nit ñi arrêter di présenter le peuple sénégalais comme un peuple violent non le peuple est pacifique là dans la mesure où suy manifester sax nii lay def. wane ne mhm. yorewul dara. Euh, Thiat man bëggoon naa dellusiwaat un peu delluwaat ginnaaw bokk ci mbiru Adama gay mhm. bëggoon naa peut-être xam ndax yow yaa ngi lire ay poste Adama Gaye non liiruma ay poste xam nga lan laa lire li ñu notifié ne moom lañ ko jàppee tey ñu ne dafa wax. lu jaarul yoon ci réew mi. Mhm. ci ndax liir nga loolu ci mbirum pétrole bi loolu laa gis boobu laa gis mhm. gisuma mhm. leneen. donc leneen keneen bu ma du ma nangu keneen di ma forcer ne leneen moo nekk. tant que kii di avocat am ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk waxuñ ne lii la exactement. bugguma pourquoi sénégalais yenn sénégalais yi bëgg a charger un autre sénégalais wala yenn sénégalais yi bëgg a par force dugal un sénégalais ne ko da mel ni da nga mel ne bu fekkee ne Adama Gaye am na lenn lu mu wax loo xam ne dafa déranger. am na ñeneen ñu ko fi doon def pire aujourd'hui ñu ngi toog biir mais mais aussi du man rek bokkuma cee ko gën. du man rek bokkuma ci moo ko gën. je et dis puis pas... man euh, comprends pas parce que bu dee ubbi nga Facebook. Mm-hmm. nga lire post Adama Gaye am na ci yoo te ni c'est en 2016 am na sax ñu ko partagé yu bëri di ko kii yooyu vraiment laalu sax laalewul sax ak mbirum pétrole. Facebook moom man wóoluwuma ko lu tax wóoluwuma ko sax. Mm-hmm. dama ko wóoluwul sax parce que mm-hmm. bu la neexee nga pirate compte bu neexee nga Adama ngay wax sañoo ko. non loolu xaw ma déglu ma li ngeen di wax ne yéen moom la wax man xaw ma ko. man li ma xam. munuñ ci waruñ ci waruñ ci jàpp sax muus ba ci jàpp doomu adama li ma wax man li ma gis man. waa léegi donc ne teguñ ko ci yoon comme yéen ñaar ñëpp nanguwu leen peut-être que ne nangu gis gisu leen ko. Hmm. liiru leen ko moom tayit waxu leen ne ñun am na yoo xam ne jot nañu ko jot nañu ko liir moo tax mu bëgg la laaj ndax parfois yenn intervention yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di autorité yi. Hmm. est-ce que c'est pas personnel maanaam dootul dépasser li nga xam ne mooy xeexal Sénégal rek mais mu nekk loo xam ne diggante nit keek ki la parce que na lu ngeen sëq am ngeen fu ngeen jaaroon loolu lan nga ciy lu personnel peut-être si suñu tradition ak suñu ay ni ñu yaroo ñu Sénégal xëy na ñu bëri mun nañ ko ñàkk. Mhm. mais il faut attendre il faut aussi tamit ni ñuy def la le discerner une chose quand tu occupes une fonction publique. mais nekkatoo nit bi juddoo ci këram génn màgg non mhm. da nga occuper une fonction publique d'où la pertinence de séparer le chef de parti ak mhm. ki yore une fonction publique mais loolu ça a toujours été au Sénégal ñu ngi wax mais depuis Euh, muy muy quatre ans après. voilà dara amatul. voilà léegi nag léegi nag. mais seen seen combat waru sax nekk foofu. non xam nga ñun xam nga moom laa lay wax cest à que loolu dafa am dafa am lu ñuy woowee xam nga démocratie processus la. c'est un éternel processus chaque fois da ngay am ay acquis après nga demat demaat soxlawaat leneen aujourd'hui on a des priorités dans ce pays yu ñu nekk di xeex. yi nga xamante ni moo taxaw nii tagga tembe mooy suñu ressources yi ñuy spolier di ko jël di li ko defee nu mu leen neexee. ñii séddoo ko bàyyi askan bi yëpp ñu ci interpellé ñëpp ñu nga xam ne dañ ci am kàddu war ci am kàddu ressources yooyu ngay wax fi mu toll nii ndax euh, nekku ñu contre maanaam nguur gi mm-hmm. démobiliser wul la plateforme aar lu ñu bokk ndax gis nañu ne depuis l'arrestation de Guy Marius Sagna vous ne parlez plus de euh, de l'affaire Petrotim <laughs> seen wax bi yëpp fi mu toll nii mooy libération Guy Marius Sagna am na keneen ku ci dellu si muy Adama Gaye encore je ma lay éclairciral tout de suite Guy Marius Sagna en personne ñi ko jege dem seeti ko les membres de son mouvement ñi ko seeti lim la ñi ko xam mooy lan c'est bien vous me défendez moi machin machin mais n'oubliez pas man la kese gii. ça fait deux semaines dégg ñu leen il a dit man la kese gii mun naa man sénégalais laa Sénégal jaral na ma man ma nekk fii ba il abat mais pétrole bi c'est pour mon enfant. ñaari semaine ay dégguñu leen. oui mais bu non bu dégg c'est pas que dégguñu mm-hmm. ñun aussi dañu on s'organise ci période kan la ñu nekkoon. Mm-hmm. le Sénégal moo engagé woon. Mm-hmm. aussi réew mi moo engagé woon Sénégal du lu ñuy négligé. raay réew mi la ñu yoroon. ak bàkk yooyu mi ñu wéyal leen ko ñu dem xare ji c'est normal que tous les sénégalais am si attention nekk ci donc aar ñu bokk def na sànq.